Modou sita gis na jël bi jël ba gi ñu dima wan leer na nañ ci sama bagage yi sëriñ su bari nak yeena ngi wax lu ngeen xamul jël bi ni ma gisé ni ma nañ lamb mu suma te sama li du fen sama li du fen jël ba gi ni ma leere nañ ñu wan ma jël ba gi leer na nañ nim koy daané ni lamb ji wara amé lépp wan nañ ko seexu yàlla bi lii ma tiim du fen moo tax ku ci xamul looy wax demal nga toogi ku ci manul li ngay def demal nga toogi ndax lii du fen ki koy waxay fen te nit ku ne yàgg na xam sa bopp li ngay wax bu dee dëgg xam nga bu dul dëgg xam nga wooteel nga joxe sa tur sa turu yaay ndox maa ngi fi carte gaa ngi fi seetu beeg béjjën baa ngi fi lii a ngi fi bagage yaa ngi fi bagage yi nga xamee ndomba gi nga xam danga koy takk doo dugg kaso doo dem kaso di nga am kayit te boo bëggee këyit di ko am boo nekkee ci place ku la fa bëgg a jële moo yegg suuf waaye yow doo yegg suuf boo jàkkaarloog nit lii du fen ki koy wax ay fen sa tur laa soxla sa turu yaay boo amee 10 minutes ma wax la lépp lay tax nga daw si ñëw sama kër ci man nga koy déggee lay tax nga bañ a ñëw ci man nga koy déggee te 22 ans ci ren du ma ci fen seexu yàlla baa ngi seexu yàlla baa ngi boo wootee sa tur nga koy jox sa turu yaay soo bëggee noob mi ngekk noob yu garaw nga bëgg loo xam da ngay tax xamu ci toog ci kër te ku la bëgg puus mooy daanu waaye yow doo daanu seexu yàlla bee la koy jox nga bëgg kayit wool seexu yàlla bi mu teggi loola sarax lépp sarax la nag sarax mooy fondement sarax mooy dëgg te sarax lu mënul amul lii du fen ki koy wax mooy fen ku ci xamul li ngay wax demal nga toogi sering su bari nak lu ne yéen koy wax ci bëre bi waaye bëre bi da ni ma leere bëre mu jël baangi nañ ma tim ko ni di gis ni tamit ci suñu kanam ta waxna ko kima kay waxal ta ba bes ba dina leer dina gennat nak moy gennat ni waxon na ko musuma wax luy doon defet mi ngi non joxal sa tour sa tour yaay ñu tifli ko ci ndox mi tifli ko ci béjjën bi wax la lu bi ak bi day tuddu tour dama tuddal ay nit tour ñu naan soxna ci fo ma ak fo lié bu ma nexé dama lay tuddal tur dama lay tuddal tur sa tur rek la soxla sa tour yaay ndax yaay nàmpal lepp nday la doomi ci nday yi lañu rawante barké bay la bay rena sa ré kon joxel sa tour sa turu yaay ba amé 10 minutes ñu wax la lepp galla ju baa baangi fi boo génnee saraxu rawaan bi dañ la koy jox béjjën yaa fi galaj bi nga xamni do dugg kasso gi fi lo xamni loy wuté ngi fi lo xamni bis la bo day wax ak nit amna lo xam sax mala ko xé sa juromi param yi nga wax ko muy jàmm rek lijeenté ak sa ak nit nga ëf sa loxo ray sa kanam tuddu turam ñett yoon ne ko wan na yaq yeeg yep li nga bëgg danga ko am muy waxu wa allah ahadun Allah samadun waaye boko défé non du non dé da am baram bu bo premier ak baram bu ci top ak samadun bi moy mujj baram bi mujj samadun mani seet lu mënul amul seetay leeral njëkk gàllaaj joog dugg bu seet leerul gàllaaj ju dugg bala maa bëgg a dee nag yéen ngeen naan ku la gis du la du la ñaanal loolu ay wax la xanaa xamal ni ki la gis mooy gis yoon wi war a jaar ba jaar fa xanaa xamal ni ku la gisul gisul sa rawaan fi mu féete eh li la nit di wax bu dee dëgg war nga koo xam nañ bàyyi caaxaani te def dëgg te wax dëgg mais di jaxase xelu nit ñi léegi nit ñi jaxasoo nañ jaaxle nañ dax sëriñ si bari nañ te kenn ku ci ne loola neex ngay wax seexu yalla bangi boko wowe ya ko gëna xam sa bop bu ko wax soxla bu ko di sa soxla bu ko ni li lay setlu man bëgguma ko ku ko def dama la naan noppil ba ma setal la ba pare jox ma sa tour ak sa touru yaay bo amé 10 minutes ma wax la lepp li du fen ki koy wax moy fen ma jox la nak cangaay yo xam da ngay mucc cangaay yo xam ko la laal daan jox la lo xam ne koy utiliser jox la lo tak jox la nomba yo tak bagage dala ngi li bu ëpp le feñ nga galla ji neena len bañu sobe takal soude bam nek ci sa ndigg kenn la ciatu lek go bon kula ko jox yegg souf ba pare bo nekkee ci sa non da ngay am mbek ba pare sa rawaan da lay dimbali ki mooy fasug rawaan lek ak nopp nek ci sa yaram da koy teggi waye boko ko tak bo buma la ko xese jox ben yon nak boko ñaké do mako ci sa ndomba yaangi fi amna ndomba yo xam juroom ñaari pitaw nga ci def juroom ñaari lu baga lu mbir garaaw garaaw garaaw tëjal juróom-ñaar yépp kenn du la nërmeel kenn du la daaneel am na ci boo xam ne defal ma seetu ci digg bi nga def ci ñeent tëjukaay soo nekkul ci benn jafe-jafe yéen xanaa xam ne yéen a ngi naa see dañ leen di jox gàllaaj ni bul ko tëj yow nekkoo ci benn jafe nga tëj xanaa xam ne boo tëjee lépp dangay tëj sa wërsëg boo nekkul ci situation nekkoo ci benn situation bu critique duggoo fenn fu garaaw tëjal ma ñaar. bu dee juróom-ñaar yi tëjal ñaar bu dee ñeent tëjël ma benn boo nekkee ci fu garaaw nag tëjël ma lépp ak yeneen ak yeneen am na ndomba goo xam boo nekkee ci biiru nit yaa leen féete kaw sama client yi nekk bitim réew xam nañ ko ñi ci am bëri na dem rek yónnee naa gàllaaj jour élection bi dimanche yi am na ko doon dem France am na ko doon dem jour élection yi yóbbu na dégg nga Belgique tamit am na yu fa dem ak Espagne Bilbao am na yu fa dem sama eh, GP baawo baa ngi daam faal mi ngi Ouest Foire maa ngi lay ñaanal yàlla lafal fal la cat di ñaanal sama GP yëpp ajaa yéen ñëpp yéen ñi dëkk Yoff ak yëpp ba ci Grand Mbao yëpp sama GP yi maa ngi ñaanal ñëpp parce que mu suma leen a jox gàllaaj ngeen wàcc ko ndabu yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal di leen ñaanal jàmm yàlla lafal leen cat musal leen ci saytaane ndax yor gàllaaj dafa garaaw di leen ci def gàllaaj doo ko joxe noonu rek am na yoo ci war a def ba du sonal ki koy yóbbu ki yore enveloppe bi yenn gàllaaj ji di nga ko jox nit te gàllaaj gi bu yeggee du jariñ nit ka dara dafa am nooy joxe gàllaaj gàllaaj dafa am nuñ koy defee gàllaaj ju caaxaan ni seet nekkul a caaxaan gàllaaj dafa nekk loo xam dañ ne la gàlloo te gàllaaj na wóor gàllaaj boo ko jox nit ki nay gàllaaj gi nga xam day aar nit ki day feguwaay nit ki day kaaraange nit ki day kiiraay nit ki dalay def jàmm ci sa yaram looloy gàllaaj waaye jox nit gàllaaj gàllaaj ga yegg jaruñu ko dara xool leen ni ngeen di joxe gàllaaj ji waaw mi ngi nii nag boo wootee sa tur rek nga joxe sa turu yaay boo amee 10 minutes ñu wax la lépp lii du fen ku koy wax ay fen mu def mbég ba tey mu def xel ñaar mu def gudd fan mu def coow coow ba tey daf fee taxawaat mu def ba tey jigéen jooy am gàcce mu def ba tey xel ñaar mu def lëndëm lëndëm xol mu ni góor gu boppam ubbu ca kaw la jógoon nekk ca kaw góor ga boppam ubbu ca mu def ba tey sarax kii yéen day lii jaraloon na leen lu ne sarax nag bi ko ci defoon lu ne def ngeen ko de waaw mu ngi noon de lii du fen de ki koy wax mooy fen mu def gudd fan ba tey mu def xel ñaar mu def góor goo xam nag boppam dafa ubbu ca kayit góor gu sori la sa bopp ubbu na sëñ bi génneel sarax bi nga am li nga bëgg yaa ngi xel ñaar ca kaw kayit ga mu def lu ñuy xibaar ba tay mu def gënen goor gu sori goy waxal téléphone mu defaat ba tay goor gu japp yoon mu def muy ndig jigéen nak yaakar jig ko mu def ciat amna ci ño xam deug la ndig jigéen gu wexatt lañ lu ñuy buñ ko waxee nañ ko bëgge duñ ko né amé amna ño xam ne lu ñu gént teg ci bët amna ño xam ne lu ñu gént dinañu toog ba gis nit wax ko wala ñu def ko amna ño xam ni dañuy nekk ci sey fekk euh, di nga nekk ci sey ñun la di la sétal ni la sey ngoro la gis Fek xagn na ngoro ga momo ko mais man na don ko sës ya wala sa borom keur kon buñ leen seetal daño bëgg ngeen jël bik ngeen bind ngeen denc amna ci ño xamé ñi ngi nekk ci place sa ñu duggé see place ba seen bop di metti seen yaram diis kand loolu dañ leen koy def mais fo gisé nak bopp dis bobu def gi man nga ko dindi parce que boroomi rawan nga lolo waral muy disar sa bop di disar sa yaram soo sa raxu yaram bi eh, rawan bi def li nga wara def ci sa yaram rek ni nga ko bëggee di nga ko di amé dama ni sarax lu mënut amul ba pare ku ni sëriñ amul dala jappul ba pare galaj ku ni amul waxo li ngay wax eh, xamoo li ngay wax ku ci xamul li ngay def demal nga togi li kenn du ko fowé ta bop neen du ko yor ta borom bop bop kese du ko yor du Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal.